moo tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la sant ci bu baax jëmale ci kenn mag secret ba secret fonk sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 yaara bi yow sama borom wasalim te salmal wa barik te dooleeg barke ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad wa ala alihi ak waa kër muhammad ñëpp wa sama bi ak saabaam yëpp wa taqabal yàlla na nga nangu mi nii jëlee ci man binaa yi sama tabax bi yaa man xaqaxta yow mi nga xamee ne yaa dëggalal bi ko ci sa kattan istixna yi sama doylu ci yow wa nawarta yàlla na nga dollee leeral fi naa yi sama ëtt wa mahawta far nga fanaa i samak faatu mooy samak jeex rek waxaa tabta waxante ngaak yow yàlla wasilati sama sëriñ ba ilayka jëm si ci yow ya waxante moom ci alquran na ko waxal bi waxul rabbi ne yow sama borom sit ni yàlla nag ma dolli xel man xam-xam waxaa ko man it waxante nag yow ana man yaa rabbi yow sama borom moo xinan di aji wóolu na di aji rafet sa ni njorto bi ka ci yow ya maalika yow aji moom sama bi xawli maa ngi wax naan rabbi sama borom sidni yàlla ma dooli xen man xam-xam mu ne maa ngi sos sama wax ci tudd turu buur bi yàlla muy xewlaa kon ñëpp ci aduna te yaa jërëm ku soob borom yow sama borom yàlla nga julli salmal te doolik barke ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad yàlla nga julli ci waa këram ak saabaam yépp yàlla nag ma nangul sama tabax bi ma nekk yow mi nga xam ne doylu gi ma doylu ci yow yaa ko dëggal de yaa ko nangu yaa ko dëggal maa ngi lay ñaan sama ëtt yëpp na nga ko leeral ba mu leer naññi yow yàlla yaa far ci man fannaaw lu ñuy tuddee jeex nit ko xam ne dafa dem ba yàgg rek mu faatu nee na yàlla far na ko ci man yow yàlla yaa waxanteeg sama sëriñ bi nga xam ne mooy sama sëriñ jëm ci ceew yaa waxanteeg moom ci alquran noo ko waxul waxul ni sitni ilman balaay wax yu gee jeex yow yonent bi ñaan ma man sa borom ma di la yokk xam-xam man it man borom Tuubaa waxante nag yow naan la man kat bi ma waxanteeg yow ba noppi maa ngi am yaqiin ànd kook rafet njorto ci yow dégg nga ci lii ma lay ñaan muy xam-xam buy dooleeku pour nga defal ma ko de. moo tax na mu ne ko wa ma xaw ta far nga fanaa i sama faatu waxaata te yow yàlla waxante nga ak wasilati sama wasil ba ileeka jëm ci yow bi ba ci waxu na ko neel rabbi sama borom dégg nga si nii nag ma doole xel man xam-xam man man borom Tuubaa waxaatabtu ko waxante na ak yow xaatabante na ak yow. ana man yaa rabbi yow sama borom léegi man damay xaatabanteeg yow moo xinan di aji wóolu moo xinan di aji rafet sani sama njorto bi ka ci yow yaa maaliki yow aji moom sama bi xawli ci sama wax rabbi yow sama borom siit nii nag ma dolli xel man xam-xam kon nag maa ngi am yëqiin sama diggante yow ànd ko rafet njorto ci waxtu wu ne nga di ma dollil xam-xam kon xasida gi loolu la ko tënkee mooy rabbi siit nii alman dafa jëm ba rek ci tawxiid ci màggal jëmi yàlla ji ak kennal ko ak li nga xamee ne moo jaadu ci jëm suñ borom ja lépp moo saxal ko ci jëm yàlla ja langa xam ne nag jaaduwut ca mustahil la dafa jomb ci moom moo dàqal ko suñ borom tabaaraka taala mu indi fi nag ba tey ñaar fukki melo yi nga xamee ne miin nañ leen wala bunt bi dafay indi al mawjud ak qadim al baqaaw al muxaalafa al qiyaamu bi nafsi al waxdaaniya al qudratu iraada al muayaatu samho basaru alkalaam aqaadirun muridun xaalimun xayun samihun basirun mutakalim waaw kon tur yooyu yëpp leen fi muy nafsiya ak salbiya ak i ak maxaani ak tur yi ñuy wax al bokk na leen inna leen ci biir xasida gi mu ne rabbi yow sama borom mawjoodun ku am nga te kenn amulul la xadiimun tey aji jiitu te amoo fenn foo tàmbalee soo baqaa in dañoo xasaf xam sa ngir wowi borom des nga todoo faatu muxaalifun aji wuute nga ak lépp loo sàkk waxaa imun te aji taxawee nga sa bopp de te man nga ko en tant yow yàlla jox nga ma baqaa an ak des de mu ne yow sama borom ku am nga taken am lu la ku dul yow amam gi yaa ko amal xadim nga lu fi nit yàgg-yàgg yow yàlla yaa ko fi jiitu te yaa ko kon yàlla ku am la taken amulul ko yàlla ku fi jiitalul te amul fu mu tàmbalee ku fi des na te du faatu lim sàkk lépp niroowut ceeg dara mu xaalifun la xaa'imun la bi nafsi dafa manee boppam du lott du tële mukk yàlla moom nag jox na ma ak des moo tax na mu ne rabbi sama borom mawjoodun ku am nga te kenn amalut la xadiimun tey aji jiitu ta moo foo tàmbalee soo baqaa in tey borom des mooy doo faatu mu xaalifun tey aji wuuteeg lépp loo sàkk waxaayimun tey aji taxawee sa bopp en tant jox na ma baqaa ak des yàlla tawhidun aji wéet la bi saati ci jëmm wal wasfi akuk melo wa fi wa bil akuk jëf laxoo ñeel na ko ci ak wéet de waxaada wa matal na lii ñeel ma fadda laxoo ngëneelam yàlla dafa wéet ci jëmm jëm yàlla niruwut ak benn jëmm melo yàlla niruwut ak benn melo jëfi sun borom niruwut ak benn jëf dégg nga moo tax nag mu ne yàlla teg na ci wamatal ma lu ñuy tuddee ngëneelam kon lii yëpp boo gisee mu koy daaneel woy day wane ne wéetal gum doon wéetal yàlla ci melokaanam yu rafet yi ci turam yu rafet yi moo tax suñu borom di ko defal li koy defal mu di ko waxaale ci biir woy moo tax mu ne tawhidun ak wéet lawo ñeel na ko bi ci jëmm wal wasfi akuk melo wa bil fi'li akuk jëf waxaada wamata na lii ñel ma fadiloo ngëneelam baana leer na nañi loxoo ñeel yàlla baana leer na nañi ci ca yàlla alxudratu kàttan gu mate sëkk wal iraada ak namel te mooy coobare wala ak xam-xam wala ak dund sa fa ira gay borom jëriñee mu ne nag sunu borom ba tey lii dafa leer naññi ci moom nekku am kàttan la te kàttanam nekku luy dooleeku mbaa muy wàññeeku yàlla rek mooy yàlla ku dul yàlla sa kàttan mën naa dooleeku mbaa muy wàññeeku yàlla na kàttanam dafa leer naññi coobareem dafa leer naññi mooy lu ko neex def te du ci tàggu kenn te kenn du ko forcé ci lépp loo xam ne bëggul koo def kon yàlla moom nag mooy ki nga xam ne ñeel na ko ak kàttan ak nameel ñeel ko xam-xam te peeg mboolem yi ñeel na ko dund goo xam ne dundam gépp day jëriñe ku dul yàlla nag sa dund mën naa bañ a dan lépp ak jëriñe moo tax mu ne ñeel na ko baanat leera naññi loxoo ci yàlla alqudratu kattan wala iraada ak namel ga wala elmu ak xam-xam ba wala xayaatu ak dund sa saa fayda gay borom jëriñe yaqoodu dana womat li jëme ci man zamho ilahi déggug sama borom wa basar ak gisam ga rabbi sama borom mawaahiba ay mayam wa nasarta dina dimbale faw xomrie samuk dundule nee na dégg gi nga xam ne sama borom ci la dégg lépp kem dégg ga yàlla ci moom gis gim gis lépp kem gis ga yàlla ci moom nee na dana ma womatal moom sama borom waxtu wu ne rek ay mayam ay mawaahibam mayam yu màgg ya waxtu wu ne rek daf ma koy womatal te waxtu wu ne daf may taxaw sama dund gépp yàlla da koy dimbale te julli ndimbalu yàlla rek la bëgg moo tax mu ne yëqudu dana womatal li lii jëme ci man samo ilaahi déggu sama borom wa basara ak gisam ga rabbi sama borom dana ma ci womatal ba ay mayam yu màgg ya wa nasarta dana dimbale foo xomri sama dund sintu rafetal na lisil kalaami jëmee ci yàlla muy borom wax ansana kutub gën kaa rafet ci ay téere xabilaha nangu na leen wa yu fasiru te dana leerale bi ci sama jëmu ji al mboolem téere yi ah mu ne rafetal naa jëmee ci yàlla muy borom wax bokk na ci melokaanu suñu borom mooy yàlla dafay wax nee na rafetal naa jëmee ci yàlla muy borom wax téere ya gën a rafet xaside yu gën a rafet ci laa rafetal jamee ko ci yàlla moo xam yoo xam ne xam-xam lañ wala yoo xam ne dafay diyanteem ak borom mu ne waaye lépp suñu borom nangu na ko de te mboolem xeeti téere yëpp yàlla mi ngi leen di leerale ci sama jëmm téere bu waaye bind rek te mu am njëriñ moo xam téere yëpp rek la ci namu kooku yàlla mi ngi leen di leerale ci sëñ Tuubaa de kon téereem yëpp dafa ñëw ngir leeral lépp lu fi jiroon ci ay téere ak yi war a ñëw ci seen gannaaw yi war a ñëw ci gannaawam moo tax mu ne sintu taaral naa lisil kalaami ci yàlla muy borom wax li ma rafetal jëmee ci yàlla muy borom wax muy ansana kutub gën kaa rafet ci ay téere yoo xam ne xabilaha moom yàlla nangu na leen xasida sëriñ bi yëpp yàlla nangu na leen wayu fasiru ta dana firee dana leerale bi ci sama jëmu ji al kutub mboolem téere yi de déedéet dégg nga mu tegaat ci na dara ak xaadirun muridun xaalimu li xayri nax wi ma na saalimu dégg nga de mu ne dara a joj na xaadirun yàlla muy ajaam kattan kàttan ji muridun tey aji namm ji xaalim tey aji xam ji jooj na li xëyri nax wi mu jëm ci furu sama wàll maa nawaahu la yéene na ko asaalim aji tonja mu ne aji tonja daal lépp lu mu bëggoon yéene ko ci man ngir bëgg maa tooñ yàlla muy xaadir di aji am ji yàlla muy murid tey borom namel ji lu ko neex def ci coobaram te du ca tàggu kenn yàlla muy xaalim xam lépp toppeeg mboolem xam-xam yi mu ne nag joñ na mu jëm ci furu sama wàll aji tonja lam bëggoon ci man ngir tooñ ko yëpp yàlla joñ na ko mu jëm ci fu dul sama wàll naxaa dana jublu li xayin jëm ci yàlla mi aji dund ji wa samehen tey aji dégg ji wa basiir tey aji gis ji wa mutakallimin tey aji wax ji baqaa i samak des saa xusóor di borom njënd yi mu ne nag yàlla muy aji dund ji tey aji dégg lépp tey aji gis lépp tey aji wax ne nag des gi mu fi des nekk borom xusóor borom yi taaxi kaw nee na loolu yëpp mu ngi jublu rek ci jëmi suñu borom yi aji dundu ji isngo ko. kañ la sëñ Touba taalib Touba xoolal jamono ji tey tubaa ñaari ñaa ñaata xasru ñoo fa nekk ñaata taaxi kaw ñoo fa nekk mu ne loolu yëpp nag ci yàlla rek lay jublu lépp loo ne taaxi kaw la ñu yëkkati ko ngir man loolu yëpp dama koy jëmale rek suñu borom yi aji dundu ji tey aji dégg ji tey aji gis ji tey aji wax ji moo tax ma ne naxa dana jublu. baqaa yi sama des gi mu fiy des saa xusur ji borom taaxi kaw yi li ayin jëm ci yàlla mu di aji dund ji wa samihin tey aji dégg ji wa basiir tey aji gis ji wa mutakalimun tey aji wax ji des gi mu des daal nekk borom xusur ku ne xam ne dafa bu baat bi rek waaye Sëñ Tuubaa amul ay palais dégg nga kon sëñ bi ba léegi mu ngi fi des gi fi des nekk borom xusur kon lépp lu waaye tabax rek ci ay xasru wala ay xusur na nga xam ne soo ko tàmbalee sëñ bee ko yeggali bu pare jibal ko boromam nag ndeysaan yaquudu dégg nga dana wamata lii jëmee ci man mawjidu kulli aalamin ka nga xam ne mooy aji xamal bépp xaalam bi fadlihi ci ngëneelam musansiya dégg nga bi fadlihi ngëneelam musansiya bi moom muy aji dàqal ma almasalima tooñaange ya mu ne yàlla mi nga xam ne lépp lu am rek ci ay xaalam ci ay kawnu ay akwaan yépp moo leen amal nee na waxtu ne daf may wamatal ngëneelam waaye di ma dàqal lépp loo xam ne xëy tooñaange la moo tamit ne yaquru dana wamata lii jëmee ci man mawjidu kulli alami yàlla mi xam ne mooy aji amal bépp monde bi fadlihi ci ngëneelam dégg nga mu sax mbir moom muy aji daqal ma almasalima tooñaa ngi yàlla mi nga xam ne mooy ki amal bépp alam ci ngëneelam ci mbaaxam rek waaye nekkul na dafa nekk farata ci moom mbaa mu war ko yàlla moom na nga xam ne moo amal lépp ci ngëneelam rek waxtu ne daf may womatal loo xam ne daf may daqal lépp loo xam ne xëyti tooñaange la moo tax mi ne yaqulu dana xomatal lii jëmee ci man moo ji di kulli alimin yàlla mi aji xamal bépp monde bi fadli ci ngëneelam kon yàlla lépp lu ma xamal rek ci ngëneelam rek la ko xamalee waaye nekku ne dañ ko ko forcé wala mu nekk farata ci moom mu sansa mbir ma muy aji dàqal ma almasalima tooñaangi ya lépp loo xam ne ay tooñkat ñoo ma ko tooñoon yàlla waxtu ne daf ma koy daqal di ma womatal loo xam ne moo ma koy dàqal ilmi sama xam man borom Tuuba xel mi sama xam intifa mooy dàq gi nga xamee ne moom la dàqu xel mi sama xam intifa dàqu gi nga xam ne moom la dàqu taasiri jeexitu xan si wax walis ludut moom xaada womatal na lii ñeel ma fii daaree ni adduna ak alaxira maa axwaaxu lépp lu may bëgg de mu ne xam gi ma xam ne nag melokaanu yi moom dafa sax ci yàlla ci moom rek la sax waaye yeneen safaan ya di ñaar fukki melokaano ya kooku dafa dàqu de waaye ku moom rek mën na koo gaar ba mu des yàlla yàlla moom ñaar fukki melokaana yi nga xamee ne nag mooy yi nga xamee ne ñoom la ñuy wax an nafsiya ak salbiya ak maxaani ak maxnawiya dafa sax ci moom mais yeneen ñaar fukki yi nga xam ne mooy seen safaan dégg nga moom dafa dàqu ci moom ku dul yàlla nag loolu mën na laa dal moo xam yónentu nga ak koo mën a doon rek mu ne xam gi ma xam loolu na rek ñaar fukki safaan yépp dafa dàqu ci jëmm yàlla ji ku dul moom ku moom na mën na laa dal mu ne moom mooma womatal lépp lu may bëgg àdduna ak àlaxira xel sama xam intifa taasiri dàquk jeexit ya xan si waaxu walis ku dul yàlla xam gi ma ko xam ne yàlla daal ñaar fukki melo yi nga xam ne mooy safaanug ñaar fukki melu yi ñuy jàngalee ah mu ne xam naa ne dàqu na ci suñu borom faw de ku dul yàlla nag mën na laa tëq de mu ne loolu xam gi ma ko xam nag xaada tan lii ñeel ma fii daaree ni adduna ak alaxira ma ahwaahu lépp loo xam ne maa ngi koy bëgg de léegi rek indiwut fa ñaar fukki melu yooyu safaan yooyu waaye dafa indi rek ñaar fukki melo yi nga xam ne moom moo sax ci yàlla gis nga ko de da ngay gis xasida yoo xam ne xasida yi ci ëpp ci xasida ak munaajaat yi ñaar fukki mel yi rek la ñu indi du indi sax safaan ya te loolu yëpp dafa am lu mu ci lu mu ciy junj rek pour ba kii jàng xasida gi leerug ñaar fukki mel yi di dugg ci yow ba nga man di wéetal yàlla ci ñaar fukki melom yi léegi nag mu indi ci yi nga xam ne moom yónent bu ne dangaa war a gëm ne lii moom dafa dafa nekk loo xam ne ah, dafa dagan ci moom de mu ne lu rus lii ñeel na yónentu yàlla yónni sidqun dëggu amaanatun ak amaana kóllite maa tabliqim ànd ak seen jotal waaye nag su mihaa déggees na aradu insaanin ca yonente ya dana leen dal luy gaar nit de na nga dégg loolu de mu ne yonent yi ku yàlla mosu yónni si duqun la mu nga dégg ci ne kon du fen yonentu du fen amaanatun la lañ ko dénk muy amaana du ca wàññi dara du ca wuruj dara waaye tabliix lañ ñoom ñëpp kenn du ci nëbbu tabliix mooy koo xam ne jotal na te nëbbuwut ca lañ ko wax na ko jotalal amaana nag mooy koo xam ne wurujut ca dara wàññiwut ca dara yokkut ca dara si siddiqul nag mooy fenut yàlla waxut ku lim bu dem wax la li moo tax mu ne li rusul yi ñeen yonentu yàlla yi siddiqun dëggu mooy duñ fen amaanatun ak kóllite te mooy duñ wuruj maa tabliixim ànd kook seen jotal mooy duñ nëbbu dara ca la leen yàlla yónni du insin luy gaar doomu aadama nag su mi déggees na ko ca ñoom mooy danañ tawat danañ feebar seen bopp dana métti seen tànk danañ def lépp lépp luy dal doomu aadama dana leen jot ba mu des nag yenn xeeti tawat yu bon yi tawat ba seeni cër di wadd ba nga xamee ne dañuy ngaana mbaa gumba yu mel noonu xeet yooyu moom kooku mustahil ci ab yonentu de ba tey mu ñëw ci yi nga xam ne dañ ko war a gëm gannaaw bañ gëmee ne yonent yëpp sidqun amaanatun tabliq lañ naka noonu malaayikullaahi malaayka yàlla yi dañ ko war a gëm wa bu lay ak téere yàlla yépp saa ka téere yépp wa xadaru lay ak dogalu yàlla yépp moo xam bu neex ak bu naqar yi wa yawmu lay ak bis péncub yàlla ba bokk na ci li nga war a gëm mooy nga gëm ne malaaka yépp ay jaami yàlla lañ yoo xam ne duñ ko mooy mukk te duñ xayta duñ dem wana duñ sëy duñ lekk duñ naan xëyit yooyu yépp ñoom ñépp ci leer leen yàlla bindee te ci cosaanuk leer googu ci lañ bay ko ci lañuy delluwaat di sàbbal yàlla kon war ngaa gëm ne malaaka yépp ay malaaka yàlla lañ manoo gëm kii weddi kële man kaana xaduwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikaila fa inna la xaduwan lil kafirina de naka noonu téere yëpp manoo gëm alquran weddi yeneen ya yëpp ngay gëm dafa am gëm goo xam ne dañu ciy soxla ijmal nga xam ne da ngay boole yëpp ci mëmbëstal gëm ko nga xam ne soxluñ ci tafsil mooy gëm bii bàyyi bële boo gëmee bii bàyyi bële mooy gëmoo benn mais boo gëmee yëpp nag day mel ni kon ijmal la mooy gëmu mbëmbëstal la kon dangay gëm malaaka yëpp gëm téere yëpp gëm dogal yu neex ak yu naqari ne lu la ci mën a dal ci yàlla rek la bay ko gëm ba tey bi pinc ne faaw dana ñëw te yàlla dana xatta ay jaamam kenn ku nekk mu fay la jasaan bi ma kaanoo yaamaluuna moo fa am fay ngir la nga doon jëf moom lañ lay fay gannaaw bi ñu lay saabee moo tax ba tey mu teg ci ne aw jaba na nga waral si tan juróom benn yi lil xiyaar yi ca tànneef ya sool baqaa sool baqaa ña nga xamee ne ñooy borom des waaye nag wa jaw soo na nga daganal nag asaabiha juróom-ñaareel ba waahibul baqaa ci yàlla muy aji maye ak des mu ne lu ñuy tuddee juróom benn yële nga xamee ne mooy alwujoodu ak qadiimu ak baqaawu ak muxaalafa ak alqiyaamu bi nafsi ak alwaxdaaniya ak ñaari juróom-ñaari muy quatorze ak juróom benn yi muy weex muy ñaar fukki muy lu mel ni qudratu irada ilmu ayaatu samho basaru kalaam juróom-ñaar la juróom-ñaar yooyu ba tey dafa am yu ci génnewaat yi leen di wax xaadirun muridu alimun xayun samiun basirun mutakalim ba tey yooyu ba tey juróom-ñaar la kon juróom-ñaar yooyu yépp ci yàlla rek kooku ci la dagande yàlla rek lañ ko war a askanale mais nag ba tey juróom benn yi wax ni nan ko saxal ci yónente ya aw jaba sittan lil xiyaari sol baqa nang ko waral ci ñoom dafa am lu ca dàqu ci ñoom am yoo xamee ne nag moom dafay sax ci ñoom faw lu mel ni ñu ne sidqun am na safaan amaanatun am na safaan tabliix am na safaan kon ñett la sidqun amaanatun tabliix seen safaan yi nag ñett yooyu boo ko boole mooy juróom benn kon yii waral ko ci yonent yi nga xam ne dañ fiy des seen jëf daf fiy des seen jeexi di fi des seen lépp di fi des xamal ne ñoom sidqun lañ amaanatuñ la tabliix lañ an ba tey mucc nañ ci de yii nim daganee ci ñoom nim nekkee xaq ci yonent yi nga war koo gëm ne siddiqun lañu amaanatu tabliq lañ noonu nga war a xamee ne ba tey dafa jomb ci ñoom lu ñuy tuddee fen ak wuruj ak nëbbu dëgg mu ne kon aw jaba warlal si tan juróom benn yi lil xiyaar yi jëmee ko ci tànneef ya sool baqaa ñay borom des te mooy yonent ya war ngaa gëm ne siddiqun lañ amaanatuñ la tabliq lañ mais nag seen safaan moom dafa jomb ci ñoom waag jaw sa daganal nag asaabi juróom ñaareel bi waahibul baqaa yàlla muy aji may ak des juróom-ñaar juróom ñaari juróom-ñaari boo ko boolee muy 14 ak juróom benn bële lool moom daganal ko suñu borom subhaanahu wa taala de xasida googu jeex na ba tey mooy rabbi sidni alman wax gi mu waxoon nag ci tarjumaan ju jëkk ji na ko waqaatabta wasilati ilayka bi bi bi waqul rabbi sidni alman waqaatabtu ko ana yaa rabbi muuqinan muhsinan sani bika yaa maliki bi qawli rabbi sidni alman moo tax mu ne ko loolu nag dama la koy ñaan fii sax saxrin ci bépp weer wax gi ma waxante gi yow te ba may waxante yow daf maa wóor péng ba noppi damaa rafet njort ci yow ci waxante gi ma waxante gi yow pour nga dolli ma xam-xam loolu nag dama la koy ñaan di waxante gi yow fii kuli sahrin ci bépp weer min xaami assasine li ko tàmbalee ci atum 1301 ilaa xaami masasin jëm ba ci atum 1340 kon nag fas tajabta yow yàlla nangu nga lii ñeel ma bi maa nangu goo xam ne lam yëkkun mosta nekk li xëyri ñeel ku dun man xattun mukk wala yëkkuna te du nekk aw mukk li xëyri ñeel ku dun man kon nag falaka ñeen la yow kottu almaxaamidu xeeti cant yëpp kullaha yëpp wala xawla deetu pexe wala quwata deetu kattan ilaa bi ka lu dul nekk na lépp fi yow subhaana rabbika tudd na ma sell ak buur bi rabbil izzati yàlla muy borom tedd nga amaa yi si fane walis lépp luñ koy melal ci ay doom ak yu ko niru ba salaamun jàmm ji sax dàkk alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ñu ñu yónni ña wala xam du melow sax dàkk tarafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin yàlla bi def yi laa rey ba déet sikk fii de mu ne nag wax gi ma wax yàlla ngir mu di ma dolli xam-xam may waxanteeg moom mu di ma dolli xam-xam mu ni ci wépp weer nag ci laa koy waxanteeg moom li ko tàmbalee ci at mi ma taxawal yoonu murit 1301 booba demagul sax ci géej gi booba sanc gu Tuuba ba ci atum 1340 nga xam ne njaarim ci la ko fekk mu ne nag yàlla nangul nga ma lépp lu ma la ci ñaan lépp lu ma la ñaan rek pour nga dollil ma ko ci diggante boobu 1301 ba 1340 lépp yàlla nangul na ko nangul goo xam ne mosul koo nangulee kenn cëlaway ku dul man te ci luy ñëw amul kenn ku ko yàlla di nangulee noonee ku dul man moo tax na mu jël xëyti cant yi gërëm yépp delloo ko yàlla mi ko defal loolu noo ko yàlla yow kat pexe kàttan daal ci yow rek la dajee maa ngi tudd sag sell yow muy borom tedd nga maa ngi lay sëral lépp lu yellut ci yow te ñi dalu ko nirole ci ay doom ak i caaju jàmm ji sax dàkk yàlla nekk ca mboolem ñu yàlla yónni ñëpp melu sax dàkk te rafet aji sax la ñeel yàlla muy borom bi defi te loolu ma wax yépp kat laaray ba déet sikk fii di ci am de li ma wax ne sunu borom defal na ma ko lépp min xaami asasin ila xaami masas loolu laaray ba fii amul ci de sikk sàkk nekkul ci de mu tàmbaliwaat geneen xasida goo xam ne ba tey tabaarakallahu noonu la koy toppee ak ñun ci laa yasbiquunahu bil qawli wa hum bi amri ya'maluuna laaray ba fiihi loolu la tënkee xasida gi insha allahu taala kon lépp rek ba tey lim tëggee xasida gi day dellu rek ci tawhid ba tey de ci ni malaak kii daan wéetale seen borom di ko sellal mu ne bisimilah sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon ñëpp ci aduna arahimi buur bari aji yaram ku ko soob ci àlaxira saxru ramadaana weeru koor alasi mooy weer wi nga xamee ne unsi la wàccees na fii ci biiram alquran téere bi di alquran hudan mbir moom mu nekk jëmmi njub li ci nit ñi wa nekk layu leer nañ ci wal furqaana mu nekk luy teqale dëgg ak fen fa man sahida képp koo xamee ne fekkee na minkum ci yéen asaxra weer wi fa man sahida képp koo xam ne ñëwal na minkum ci yéen asaxra weer wi fal yesuhu na ko woor de mu ne maa ngi tàmbalee sama xasir gi ci turu yàlla yàlla muy xéewalaa kon ñëpp ci aduna te yaa ji yërëm ku ko soob ci àllaaxira sunu borom moo wax ci suratul baqara na alquran ji ñi ngi ko wàcce ci biit weeru koor di max naa ba muy wàcc njëlbeenam ci biir weeru koor ci la wàcci guddi googu ñuy wax guddik laylatul xadar waaye nag alxuraan moom weer wu ne am na lu ci wàcci at mu ne am na lu ci wàcci diirum ñaar fukki at lu teg ci la wàcc yonent bi ñaar fukki at ñett waaye nekku nag buñ ne tabaarakallahu am na beneen déggin boo xam ne sëñ Tuubaa moom dégginam mooy loolu te mooy déggin bi gën a matale ñi bu yàlla waxee ne maa ngi wàcce alxuraan ci guddik laylatul xadar ñi ne dafay dafa jubla wax ne da koo jëlee ci lahul manfoos indi ko ci nii bi nga xam ne mu ngi ci asama u dunya ñi koy wax baytil xasa ñi ne wàcc goog la ci yàlla namul waaye nag ama moom namut ci di wàcce par aaya di wàcce par aaya wala aaya jëm njëkk a ci guddi googu la wala di wàcce par aaya di wàcce par aaya ñi jublu ci ne ci biir koor gi ci lañ ko wàcce déedéet waaye alquran lépp téere bi lépp dañ ko jëlee ci lawul mahfuus indi ko ci benn nit bu ñuy wax baytil xasa loolu nag moo dëppee guddig laylatul xadar moo tax ñu ne alquran ci guddig laylatul xadar ci lañ ko wàcce moo tax mu ne weeru koor mooy weer wi nga xam ne ci la wàcc ci la yàlla wàcc ay alquran ay di max naa ci lañ ko jëlee ci laxul mahfuus indi ko ci baytil ansa ci asamaan si tiim ñu su ko defee nag xew-xew bu ne rek suñu borom am lu mu jox jibril mu indil yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne alquran ci weer wi ci lañ ko wàcce mu nekk nag njub ñeel nit ñëpp nit ñëpp njub la di max naa lu leen di orienté di leen wan dëgg di leen wan njub rek la alquran loolu ko tax wàcc waaye lay wu leer naññi la kawteef wu leer naññi la wu leer naññi wu tukkee ci njub de waaye dafa ñëw ngir teqale dëgg ak lu dëgg bañ man koo xàmmee alxuraan teg ci na képp koo xam ne yéen xëytu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala képp ku di ab jullit rek ndax woor moom ku nekkul ab julit warut ci yow mu ne koo xam ne weer wi ñëw na fekk la fi si nga alxuraan ni mu fasaaxee de waxut ku fekk weer yi mais ku fi weer yu fekk ndax weer yi moom at mu ne day ñëw benn yoon la suñ ko waxoon ne laa silta day fan kariman saa iran abadan mukarraman bi qirataati wa sadadi kon képp koo xam ne weer wi dikkal na ko su fekkee amul benn ngànt moo xam jigéen nga mbaa ngay góor te man nga mu kolof rek mu ne nanga ko woor de moo tax nag mu ne alquran sanru ramadaana weeru koor allasi mooy weer wi nga xamee ne unsi la wàcce na fii ci biiram alquran alquran hudan mbir moom mu nekk ak njub ci nit ñëpp wa baynaat mu nekk lay wu leer nañ minal hudaa wu tukki ci njub wal furqaana mbir moom mu nekk luy teqale dëgg ak fen teqale dëgg ak neen bañ man leen di xàmmee xam dëgg teg ci suñ tànk xàmmee neen daw ko fa man sayida képp koo xamee ne dikkal na teewee na min kum ci yéen asaxra weer wi maanaam weer wi ñëw na fekk ko ci at moom muy dund mu ne fal yi sumxu na ko wor de alquran moo wax loolu kon li sëñ bi ngee xasidi rek mooy baatab laa yasbiquunahu bil qawli wa hum bi amrihi yamaluuna ak laa ba fiihi mooy ñoom malaayka yi amul lenn lu ñuy jiitu yàlla ci wax mbaa ci jëf ndax wax jëf rek moo fi nekk malaayka yi nag ñoom ni leen yàlla bindee duñ wax loo xam ne yàlla waxut leen du duñ jëf loo xam ne yàlla waxut leen ñu jëf ko kon loo dégg ñu wax ko rek di ko sàbbal yàlla ko wax loo la ñuy jëf itam yàlla leen ko jëfloo moo tax ma ne ñoom malaayka laa du ñu jiitu yàlla bil li ci wax waxum te ñoom malaayka yëpp yaamaloona way jëfee lañ bi amri amrihi ndigalug yàlla laa rey ba déet sikk fii di ci nekk de lii wax sikk amul ci de amul menn malaaka muy jiitu yàlla ci wax doomu aadama nag loolu moom ñeme na ko jiitu yàlla ci wax mbaamu jiitu yàlla ci jëf loolu yëpp nit ñi nañ koy def waaye malaaka moom du jiitu yàlla ci wax du jiitu yàlla ci jëf la ko yàlla sant rek loolu lay def la muy wax yàlla ko ko wax loolu la muy jëf yàlla ko ko jëf loolu te nee lii nag sikk sàkk nekkut ci léegi nag loolu la sëñ bi tënkee xasida gi ci jëmi boppam mu jël laam ak laa yasbiquunahu bil qawli ne laa yent yi du jublu liye ci liye ci man alasi la nga xamee ne lam yuxtari tànnalee sut ko lii ci man abadan faw walaahu te mbir moom yàlla ab xaa saxal na suturi sama sutura lépp lu ma yàlla tànnalut kooku du jublu ci man mukk nga déggee ci kon li ko yàlla tànn rek moo koy jublu waaye lépp lu ko boromam tànnalut moom borom tubaa rek du ko jublu moo tax mu ne du jublu mukk lu ma yàlla tànnalut faw te yàlla muur na ma sàng na ma malaanu suturam muy wëy rek di sax te du ko xaawi yan hoo dana jublu alkadru lépp luy nax-nax ilaa si waa saatiya daw jëm ci furut sama jëmm wayantahi dana jublu lii ci man alxadaru dogal yu neex yi maal mu naa ànd la lépp luy nax nax nax nax mooy dogal yu naqari yi nee na dana jublu jëm ci furut sama jëmm waaye dana jublu ci man dogal yu neex yi ak mbébét yi lu ma mbébét rek mu daal di ñëw te lépp lu yàlla dogal ci man rek lu neex lay doon yesoo ko dana màng iblis a iblis wama waalaw ak képp ku méngoog moom li xëyri duriya mu jëm ci furut di ma lor si kan moo koy màng mu ne alxafiisu yàlla muy aji wattu ji allahu ta mooy borom yi xafiisu tey allahu mooy aji wattu ji te buur mooy ismu saat mooy turu jëmm ja allahu nee ni iblis ak képp kuy taalibeem sunu borom dana ko màng su bëggoon may lor sax su ma bëggoon a ñëw lor si sax yàlla moo koy màng moom iblis ak njabootam gi ñu jëm ci fudut di ma lor si sahaadati samak texe rida ilaahi illaahi mooy ngërëmal yàlla mi nga xam ne mooy ki sàkk nit ñi taquulu dana womatal lii jëmee ci man bilaa asan ci lurut benn lor di ci ànd aw laahi wala xeeti caaxaan nee na samak texe nag mooy ngërëmal yàlla de ko am ngërëmal yàlla rek texe nag nee na sax samak texe nag moo may womatal ngërëmal yàlla de te benn lor du ci ànd mbaa caaxaan saadati samak texe taquulu dana womatal lii ci man rida ilaahi naa ci ngërëmal yàlla bilaa asan ci lurut benn lor aw laahi wala caaxaan baraka barkeela na lii ñeel ma albaqi yàlla muy aji des ji bilantihaa ci lurut muy am yemukaay fii umri ci sama dund gépp wal kaddu ta mbir moom coono son ti hay borom jeex la ci sama dund yàlla muy aji des ji de dugal na ci sama dund gépp mu barkeel barkeel goo xam ne du am mukk fi muy yem dund gu barkeel rek mooy li solo nee na waaye coono yëpp jeex na de xuttu womat naa xaqaay di samay pas-pas waxaw lii ak samay wax wal xamal ak jëf yëpp wa xuluqi ak samay jukko lillaahi jëmee ko ci yàlla moo silil amal moom muy aji amal mbébét ya nee na daal sama pas-pas sama tawhiid ak samay wax ak samay jëf yëpp sama jukko yëpp jébbal naa ko yàlla jox ko ko moom mi nga xamee ne lépp lu waaye mbibét am ko moo la ko may waa jaani jublu na ma almandooba yi ñu sopp ya bandal bi gannaaw yi nga xamee ne mooy yu war yi muy farata yi maxal mu bàyyi ànd ko yu dagan yi lay sa lii déet di ma ñeel min haaji bi génn aji yiir lépp loo xam ne luñ sopp la yiw ya ci juddoo yëpp jublu na ma lépp loo xam ne lu war la muy farata te yàlla digle ko kenn ku nekk mu nekk fardu ay ni ci nga mën koo defal sa bopp walis keneen mu ne loolu yëpp la ciy juddoo ci aw yiw jublu na ma naka noonu xeeti mu baax yëpp lépp lu yàlla daganal la ci juddoo ci aw yiw yëpp jublu na ma amul lenn lu mën a dox sama digganteeg sama borom ndax yi yëpp jublu nañ ma waa jaani jublu na ma almandoob yi ñu sopp yi bandal waajibi gannaaw yi nga xamee na aji war lañ maxal mu bàyyi ànd ak yu dagan yi lépp lu dagan mbaa mu nekk lu war mbaa luñ sopp ci boppam moo def ab jëmm ñëw jublu ma te lay sa lii dee di min xaaj bi génn aji yiir kenn mënu maa yiir dox sama diggante ak sama borom nax wi sama naxu nag maal xaroot yi ànd kook bi xaa i daani ñaari way womat lañ ma lillaahi jëmee ma ci yàlla wa rasuuli ak yonent bi waaye mursi daani ñaari way jubal lañ ma sama xam-xamu grammaire ak xaroot xam-xam bi lay jàngal wàllu way nee na ñaari xam-xam yi dañ may womat di ma jëmee ci yàlla ak yonent bi waaye ñoo may orienté di ma gindi ñooy sama mursid mooy ki may jubal moo tax nax wi sama xam-xamu grammaire bi xaa idaani ñaari way womat lañ ma lilaay jëme ma ci yàlla de wa rasuli ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mursidaani ñaari way jubal lañ ma de xaar walati daw na alxeda samay noon li xëyri jëm ci furun man abadan faw nax wi sama wàll wala nax wi sama naxu maala la xaroo di ànd koog sama xaroot xabada way jaamu lañ rabbi sama borom samay noon yëpp daw nañ jëm ci furun sama wàll faw te sama xam-xamu grammaire ak xaroot bi yëpp dañuy jaamu sama borom xam-xamu grammaire bi nekk ci man ak xaroot yëpp dañuy jaamu sama borom moo tax mu ne xaar wala ci daw na wëqiit alxeda samay noon li xëy di jëm ci furun man abada faw de nax sama naxu maal arut di ànd bi xarut bi yëpp abada danañu jaamu rabbi son borom xabatu jaamoo naa rabbi son borom bi nax wi ci xam-xamu garamel wal xarut ak xam-xamu arut wal bayaan ak xam-xamu bayaan bilaa asiyaani ci lu genn ak mooy nee na sama borom jaamoo naa ko ñetti xam-xam yi xam-xamu naxu xam-xam bi lay jàngal wàllu règlement ci wàllu wëy ak xam bi lay jàngal wëy xarut ak bi lay jàngal bayaan refatuk wax mu ne jaamu naa sama borom ci ñetti xeeti xam-xam yépp jaamoo naa ci sama borom ci lu benn ak mooy te mooy ma ko mukk xam-xam yépp dama ko doon jaamoo yàlla mais du ci mooy yàlla. salaba rink na rabbi sama borom ilay jëmee ci man alqur'aana alqur'aan fii ramadaana ci biit weeru koor kon nag fa aana jot na sukóor yi samay cant ko. yàlla rinki na alqur'aan ba ma koy jox nag ci biit weeru koor ci la amee de yàlla jël na alqur'aan rinki secret ca nekk yépp. xamal ma lépp lum làmboo rinki ko jox ma ko mu ne loolu nag ci biir weeru koor la de mu ne kon nag jot na ma sant ko de salaba rinki na ilee jëmee ci man rabbi sama borom alquran a téere bépp di alquran fii ramadaan ci biir weeru koor de kon nag fa ana jot na sukóor yi samay cant ko de laqiini dajale na mag boppam rabbi sama borom bilaa imaata ci lu dul may faatu wala tanaasoen ci lu dul may xëccoonte kenn wala samaata wala ñi di ma ndokk sunu borom bay gi ma bàyyi woon ma nekk ci loxo samay noon te nekk ay noonam loolu taxul ma faatu de yàlla dajale na maag moom de te faatu ma mukk te itam amul kenn ku may xëccoon teeg yëfi adduna wala amul kenn koo xam ne sama noon la mu di ma ndokk déedéet sëñ tubaa kenn mosu ko ndokk amul benn noon boo xamee ne antoon nga ak sëñ tubaa ci jamono mbaa nga noonee ko ba noppi di ndokk moom koy moo lay ndokk moom mu mujj di ndokk ay noonam nan ah, leen ñaw <laughs> ah, laq yéen yi dajale na maag boppam rëbbi sama borom bi laa imaati ci lurul ak faatu wala tanaasoñ du caageen ak xëcco wala samaatu wala ak ndokk xalabtu wëlbati naa ko li sama lépp la woo ci yàlla xenda xeddaawu xenda xeddaaw fa noonam ba waxaada nii woo mat na ma min hum ma bàyyi ko ci ñoom waxaada woo mat na lii jëmee ci man hudaahu njubam ga sama lépp ba ma nekkee fa noonu yàlla ba ta mooy ba ma nekkee ci géej ga sama lépp laa jël jébbal ko sama borom yàlla woo mat ma génnee ma ci noon ya delloo si ma fi ma beekoon di Sénégal ba noppi nag wan ma li nga xam ne mooy njubam nga ma sax ca waxaa dañuy womat na ma minhum ca ñoom ba ma nekkee ci ñoom yàlla moo ma doon womat di ma xëcc di ma jëmee ci boppam xalabtu wëlbati naa ko lii lépp loo jëmee ci yàlla xen daxe daaw ko noonam ba waxaa dañuy womat na ma minhum fa ñoom ba ma nekkee fa ñoom yàlla moom ma doon xëcc di ma jëmee ci boppam waxaa dañuy womatal womat na lii jëmee ci man fu daaxu njubam ga waa jaani jublu na ma bi tuxuri ci ak laab wa liqaayi ak ga wa bi saxaadati ak texe ga bilaa saxaay ci lur ak texe di lu ñuy tuddee ak laab mooy koo xam ne dafa set wicc ci biir ak biti yàlla jëmale na ko ci man lu ñuy tuddee dajeeg suñu borom gi mooy dem ba ci yàlla dajeeg moom loolu yàlla defal na ma ko lu ñuy tuddee ak texe goo xam ne texe dootu ci topp yàlla defal na ko moo tax mu ne waa ji ani jublu na ma biitu tuxri ci ak laab wali xaay ak dajeega yàlla laabal na ma dajale na ma ak ndax yàlla rek la doon wut kon dem na ba yegg ci yàlla wa bi saadati yàlla defal na ma texe goo xam ne bilaa saqaayi texe yi du ci topp sëñ bi neen suñu defal na ma texe goo xam ne ak texe yi dootu ci topp mukk